muqtada jegema yàlla yàlla dolli jàmm Mbacke Balla sa waajur wa moo ndigal ni am leen fi takku leen dana jëm ca kanam kooku mooy sëñ Mamour Mbacke moo dugg si noonu waaw Serigne Oumar Gueye ministre chef de la délégation bi Serigne Oumar Gueye pare ñu jox suñu Serigne imam Serigne Maam Mbacké bismillah monsieur le maire xaw ma tànk bismillahi rahmaani rahim euh, ginnaaw bu ñu sante suñu borom jullit ci rasulillah maa ngi jéem a ñëkk ci wax monsieur le ministre de la gouvernance territoriale Oumar Gueye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 muy asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu kàddu yi ñuy yëkkati sëriñ maam moom sax bi mi ngi bàyyi ko ci njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ak ñaan nangu na teewaat nañ fi ren teewal fi président kon nuyoo yooyu ñu koy teg sa loxo nga tegal ñu ko ci loxo xalif général day mu Sëriñ Mountakha Mbacké Bassir président wax ni juróom-ñaari at ci ginnaaw dénk nañ ko réew muy Sénégal def ci kéemtalaayu kàttan bi laajte jotee waat mu ñëw tàllal ay loxo askan wi sàkku ci yéen ñaar. askan wi ngi doyloo li ko sëñ Muntaxa waxoon ko bàyyi naa la ak sëñ Tuuba loolu de moom nee na gis ndax bi muy wut yàlla def na ñaan yooyu nangu na jaarale ko ci askan joxaat ko Sénégal nee na nag juróomi at juróomi at yii mi ngi ciy sàkku ñaan sur une semaine, vous, trouvez, trouverez que cette population est exceptionnelle. Il y a eu une mobilisation exceptionnelle. Une mobilisation due à la qualité du parrain, Sindaro Hassan euh, qui, qui fait partie des premiers à avoir fait allégeance à Cheikh Al-Khadim. Certains disent qu'il est le sixième, D'autres, ayant des rangs très élevés dans le, dans le mouridisme, pensent qu'il serait le deuxième ou le troisième. Donc son aura a eu des effets visibles sur la mobilisation des gens. Sa famille, comme on la connaît, une partie, une partition de s'est mobilisée comme ils savent le faire. Et tout cela a concouru à faire ce Magal un Magal exceptionnel. asalaamaaleykum chers internautes rawatina les abonnés de Saint-Louis TV tey comme ni ngeen ko gisee ñu nekkoon dans lévénement événement de des deux RAC tey jii nii mu nekkoon 44e édition bi ñu tuddee ko sëñ Assane Darou Ndiaye tey jii mu nekk événement boo xam ni fi ñu taxaw ak di wax nii jot nañoo julli ñaari raakaay ba pare waaye dañuy fas yéene waxtaanal suñu tonton ji di Maxu Meng rek si événement bi ban jàngat ngay def si événement bi. waa jàngat bi mooy sant yàlla rek julli ci bi. di ñaan yalla yalla na ko teew déwén yu bare yéen wa Saint-Louis TV su ngeen ma fekke fi ci place Faidherbe fi nga xamni sorawul dara ak fi Serigne Touba Xaadimu Rasuul julli won ñaar rakka yi ci bisu 5 septembre 2019 dañu sant yalla Serigne Touba bi mu julli fi le 5 septembre 1895 wéetoon na lool est-ce que xam nga ni train bi donc inauguré 1885 10 ans après le Serigne Touba ñëw Ndar 1895 Serigne Touba bi muy ñëw Ndar pont Faidherbe bi bii ci biir liggéeyu point fédère bi le Serigne Touba ñëw Ndar.